bi metti na de waaw ah. agresseur yi bu ñëwee dañ may def lu ma metti sama doom ji maa koy jël jël ko am fu ma ko dugal dañ may sonal lu ne ñu def ma man maay reculer te daw dégg nga amul ñu ma deful fii si filaawoo yi la ñuy gën lu ne ñu def. jërë ngeen jëf mbokk ñi suivre ñu ngi leen di nuyu di leen bëggee di leen jaajëfal di leen ñaanal jàmm waaye di ko sàkku ci yéen. tey nag maam émission boo xamante ni. kii ngeen gis jigéen la kii ngeen gis ndaw la yàlla dogal mu am jafe-jafe xel ñu génnee ko seen kër ci ay waxam presque deux ans ngi nii ci mbedd bi lay fanaan presque deux ans ngi nii ci àll bi lay fanaan boo leen xoolee oto yi nekk sama ginnaaw ci autoroute bi ak fi muy fanaan presque benn la lii wóorul people 221 nag di dox ba yem ci xeebuñu kenn xàmmewuñ buur xàmmewuñ baadoo la xàmmewuñ ki wér xàmmewuñ ki wérul lépp loo xamante ni soxlay jaam ni la lépp loo xamante ni soxlay Sénégal dañ ci dox di ci wax. ñu fekk ko fii ci autorité mu toog ñu fa yéene dem waxtaan ak moom lan moo waral mu toog fii ak yan jafe-jafe lay dund fi tali bi suivez-moi. na si noo def. maa ngi yaa ngi si jàmm. waaw maa ngi si jàmm. noo tudd. Aïda. foo dëkk. Kër Massar ay Malika. ah diggante Kër Massar Malika. diggante Kër Massar Malika. say parents. sama parents nekkuñu fi de. lan ngay def fii nga toog. ah dama toog rek dama yalawaan pour ku ma dimbali rek jàppale ma. Ah, lan moo la poussé wala lan moo la indi fii nga toog da génne ci kër wala lan nga doon dund seen kër ba tax nga ñëw ci mbedd mi. waaw ah, dañ maa sonal sa kër ga rek daw nañ ba sonn ñoom daw nañ ba sonn dañ maa sonal ci kër ga moo tax moo tax ma daw bàyyi leen. léegi fan ngay fanaan. fii ci kii mbedd filaawoo. ci doom ji ñaataat la am. ñaari at. fer ah, fii nga toog nii ak tali bi nii oto yi di la romb nii est wóor na. wóorul de man ku ma dimbali rek laa bëgg man dama sonn billaay ku ma dimbali rek yóbbu ma laa bëgg. waaw. jafe-jafe ngay dund fii nga xamante ne mooy filaawa yi fi ngay fanaan. ah dund bi metti na de. waaw agresseur yi bu ñëwee dañ may def lu ma metti sama doom ji maa koy jël jël ko am fu ma ko dugal dañ may sonal lu ne ñu def ma ko man maay reculer te daw dégg nga amul luñ ma deful fii si filaawo yi la ñuy gën lu ne ñu def ko. dund bi metti na torop sama doom bi day yuuxu ñu koy jël di ko téye man maa yuuxu pour ñu joxaan ma ko man mii maa yuuxu pour ñu joxaan ma ko amul lu ma fi dul dund metti dund bu ne dund naa ko fi metti dund bu ne dund naa ko fii sonn naa mar naa nekkuma ci kër guddi yàgg naa ci ay mberti di taxawaal yàgg naa si kër yi di taxawal. mais fi nga toog nii est-ce que tey nga jóge fii gënul parce que fii wóorul ak oto yi nii ak xale bi. su ma amee fu ma dem macha allah ma jóge fii ak ku ma dimbal la dimbal rek laay wul waaw su ma amee fu ma dem rek ma dem. sa borom kër yéen ñaar da ngeen a tàqalikoo wala lan moo leen jotale ba ba nekkatoo leen. sama borom kër yàgg nañoo tàqalikoo de. moom daa daw si keneen bàyyi man maa ngi fi ak agresseur chaque jour. aduna heli wali jali so wona mo yali dañata ko ñaami mbokk yi comme ni ñu ko waxee jigéen la gis ngeen ko fii mu toog oto yi gis ngeen ni ñuy rombee gauche ak droite fii VDN la fii lay xëy fii lay gont nekk jigéen mu metti lool mu yor xale waaye gis ngeen jafe-jafe yi nga xamante ni fii la koy dund ci ay waxam nee na bu xëyee fii lay toog depuis 9h di yalwaan ba ay midi bu agresseurs yi génnee mu daw dem kolobaan yalwaan bu guddi jotee mu ñëw tëdd fi nga xamante ni mooy filaawo yi lii metti na kon yéen ñi nga xam ne yéen ñuy suivre képp koo xamante ne gis nga vidéo bii nga def ko comme sa sœur nga def ko comme koo bokkal ndey ak baay nga jëm ko jàppale pour mu retrouver ñi nga xamante ni ñooy ay mbokkam. voilà gars yi mu ngi noonu ah yéen ñi nga xam ne yéen ko doon suivre képp koo xamante ni tey bëgg nga ko jàppale. wala képp koo xamante ne tey gis nga ko mu bokk ci say mbokk wala képp koo xamante ni bëgg nga ko jàppale ci wàllu habillement ci wàllu fu mu dëkk. ci wàllu lekk ci wàllu naan parce que dëkkul fenn ci mbedd mi la dëkk fii lay xëy guddi gi ci filaawo yi lay fanaan képp koo xam ne bëgg nga ko jàppale boo wootee ci service commercial bi nga xamante ne mooy people 221 dinañ la indi ba fi mu nekk waaye képp koo xam ni it bëgg nga ko jàppale boo ñëwee ci police bi nga xamante ni mooy Wakhinane Nimzatt ñoom dinañ la indi fii nga xam ne fi la ndaw si nekk mention spéciale nag à police Wakhinane bu Nimzatt parce que def nañ ci liggéey bu solo toog naa ak ki nga xamante ni mooy commandant mu ni ma ñun de déplacé wu nañ ak suñu moyen déplacé wu nañ ak suñu oto trois fois dañ koy jël mu ni fii laa bëgg a dem ñu yóbbu ko mais heure bu ñu ko yóbboo rek day ñëwaat kon mention spéciale à police Wakhinane Nimzatt di leen wax képp koo xam ne bëgg nga ko dimbali ci côté yëpp képp koo xam ne gis nga ko nga xàmmee ko bëgg ko jàppale ñi nga xamante ni ñoo fi nekk di association yi nga xamante ni ñooy jàppale ñi nga xamante ni dañoo wëradi wala néew doole yi ñu ngi leen tàllal loxo képp koo xam ne bëgg nga ko dimbali rek mën nga woote ci numéro service commercial boobu di people 221 jërë ngeen jëf